yal na yàlla yombal li nga xamante ne mooy eh, sunna bi nga xam ne moom la ñu war a joxe di tabaski macha allah yal na yàlla yombal xar yi waaye yal yàlla may ñu ñu fekke ko loolu dong moo am solo ah, ku ne nag la nga mën rek ngay def bañ di xëccu macha allah di nuyu ñëpp di ziare ñëpp di baalu ñëpp àq di wéy ak yéen ak daara ji ngeen gis ne bi passé ndeysaan ñu waxtaan ak yéen li nga xamante ne moom mooy wàllu julli. wax nañ leen ne de mooy li nga xamante ne moom dong ponk lislaam yi ci biir ponk lislaam ni nga koy defee doo ko defee yeneen yi noonu loolu wax nañ leen ko waaye naka kañ mooy julli kan mooy julli ak ban heure la war dañuy julli loolu lañuy waxtaane tey muy waxtu wa wax nañ leen ne moom julli ci boppam eh, yàlla moo wax ne maa ko wàccee ci yéen waaye dama ko wutal waxtu comme ni mu waxee ne baada auzu billahi min alshaytaani irajim inna alsalata kaanat ala almuminina kitaaban mawquuta julli daal maa ko jox seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye dama ko wutal waxtu kon muy won ne du heure bu la neex nga war a julli dafa am waxtu comme ni nga am ni nga tëralee niñ la tëralee waxtu fii ci àdduna bi nga nekk gis nga àdduna bi nga ne waxtu yi ngay fonk lool bañ ku la ci piniir noonu nga war a xamee ne julli gi ngay def dafa am waxtu dañ ko wutal waxtu dañ ko wutal waxtu kon du heure bu la neex ngay julli du heure bu la neex ngay julli eh, du fu neex neexit ngay jullee comme dafa am waxtu ku ne war ngaa xam waxtu boobu comme ni ngay xamee waxtu bi nga xamante ne moom la lay docteur bi di consulter ne la garab gi comprimé bi benn suba benn midi benn ngoon fulla gi ngay am ak fayda gi ngay am mu jaral la ba nga naan sa doom sax ndeysaan ma fàttali man kat dama mën a fàtte heure bu bu jotee ah nga fàttali ma ko yaakaar naa ne noonu nag boo ko defee di nga xam waxtu julli yi wala sax macha allah heure bi ngay xëy xam ne man kat su ma teelul xëy bi dinañ ma dàq wala kat heure bi may jàng ji suma ma teelul dem kat dinañ ma dàq dégg nga wala dinaa jël bi d'entrée dinañ ma punir kon ngalawaay bul fàtte kon waxtu yàlla bi jox ko ci waxtu ba moo gën moom la yàlla soxla loolu la yàlla wax borom bi subhaanahu wa taala moo ko wax kenn wax ko ku dul moom kon ni nga fonkee heure bi mu jar la nga war a dem am rendez-vous cinq heures du matin nga jël si nga jóg trois heures du matin wala ngam am rendez-vous sept heures daal di jóg cinq heures du matin ngir lan bañ a tardé bis bi ngir lan bañ a tardé et waxtu bi bañ a tardé rendez-vous ba parce que xam na ne boo ko defee mën nañ laa renvoyer kon yàlla noonu la soxlaa ko julli ci waxtu noonu la ko soxlaa moom borom bi subhanahu wa taala noonu la ko soxlaa kon nag loolu nañ ci bàyyi xel ba pare su ko defee loolu nag boo demee ba xam ko mu jaral tey ji ñu koy bind ci ay kayit ñu koy wax ci rajo yi gis nga kon toujours nit daal mi ngi noonu rek toujours waxtu waxtu la heure ndeysaan waxtu gis nga gis nga même booy tukki tey jii dem Europe ñun la premier vol nga war a dem cinq heures la war a dem yow yaa nga fa trois heures wala yaa nga fa une heure du matin bu fekkee ne vol ba mi ngi war a dem minuit yaa nga fa neuf bu fekkee vol ba mi ngi war a dem eh, cinq quatre heures ci ngoon wala quatre heures du matin soo moytul fa ngay fanaani ji ngir lan bañ koo tardé kon ana waxtu yàlla bi waaw ñuy fàttali ko ndeysaan ba yi nga xamante ne ndeysaan bañ doon sol suñu tenue nekk armée bu colonel bi a ñëw gis nga bu waree ñëw huit heures dañaa rassemblement six heures du matin ndeysaan kon na gis nga yooyu yëpp muy jàngale ko xam ne armée bi mi ngi koy jàngal nit xam ne waxtu daal ah dañ ko war a fonk nit daal warul tardé dafa war a jóg préparé wu avant tout pour waxtu bu jotee nga mën kaa def kon nag su ko defee loolu lañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax seytaane nag fa lay laxasoo looloo ko gënal lu ne pour xañ la ko ba nga bañ a def ko ci waxtu ba parce que xam na ne am na koy waxal koo xamante ne moom moom seytaane yàllaa ko dàq dégg nga tere ko lépp yàlla moo ko dàq moom nag heure boobu ngay jóg pour wax ak borom bi subhaanahu wa taala ci lay bañ na nga wax ak moom mu tax di la di la di la ko bañ loo def boo bëggee jóg mu naj la soo jóg naan la toogal ba ci kanam waxtu bi yaatu na waxtu bi kat ah dégg nga gudd na fii ba fii mun de déedéet noonu de ku ne na nga xool sa bopp ku ne na nga ko xool sa bopp rek ci waxtu yi nga tëralal dégg nga kon ndagam nag da ngay tardé école rek jël billet d'entrée dégg nga wala ñu ne la absence sa fooy dug fooy bi nga xamante moom ngay moom mooy fooy compo ñu bind si retardataire day tardé kii kat dafay manqué kii kat dafay absenté gis nga comme noog nit si boppam moo mën tëral lool nga mën ko fonkal waxtoom bi waxaatina nag borom bi subhaanahu wa taala kon inna salaata kaanat alal muminina kitaaba mawquuta yàlla bëggul faat waxtu mu jaral ko ba mu wax ne ndeysaan su la ñuy waxtaanee de boo amul sax loo jullee waxtu bu jotee wala sax bu leere na waxtu bu jotee boo jàppee waxtu bi day passé tiimal nga julli yëpp mi ngi koy wax moom borom bi subhanahu wa taala dégg nga gis nga de kon boo amul yëre boo sol yëre mu nen ngir waxtu waxtu waxtu mooy lépp macha allah su ko defee nag loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ci lu gàtt yooyu incha allah bu ñu ñëwaatee ñu dugg ci nag julli niñ koy defee ci waajal ko nan lañ koy defee dégg nga eh, ak buñ koy def nan nga war a mel incha allah rabbi loolu rek lañ doon waxtaane wa axiru daawaana an alhamdulilah rabbil asalaamaaleykum wa rahmatullah seen mbokk Cheikh Ahmed Ndiaye di ñëpp